asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer juróom-ñaari fan ci weeru safar muy weeru diggi gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ak ñeenti fan ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar juróom-ñaari fan bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na li ñu ciy tere tere moom dibéer mooy ku ca watu wala ko ca tàggoo ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ma sopp la ak sopp képp ku la sopp allahumma inni asaluka xubbaka wa xubba man yuxibbuk allahumma inni asaluka xubbaka wa xubba man yuxibbuk xadiis bis bi day wax ci njariñul soppante te yàlla rekk tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk du ngeen dugg àjjana lu jul ne dangeen a nekk ay jullit du ngeen nekk ay jullit lu dul ne da a soppante dee leen siiwal am nuyoo kon di ngeen soppante maanaam saa yoo rombee nit rek nga nuyu ko maa ngi leen di wattandikuloo mbañeel ndax mooy aji wate ji waxuma nag watu karaw waaye diine lay wat demal ko ba dara du fa des xadis bi Buxaari yi moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam wallazi nafsi bi waxtu julli yi suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak benn tisbaar benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñeent tàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñeent timis juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili gee juróom-ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak benn loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku fukk ak juróom-ñaari kilomètre ju ne wàññil benn simili soo ko féetee sowwu fukk juróom-ñaari kilomètre ju ne yokkal benn soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètre ju ne yokkal benn simili jant bi dina fenk juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom benn di so juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñaar yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin